mbokk yi boroom naaru góor yegsi na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina usmaan Ndiaye boroom naaru góor grand marabout di borom baatin boroom xam-xam ak boroom xalwa Seydina Ousmane Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi. mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 19. léegi jëlee sa vidéo be cinématique bi vidéo naturel bi li ngay defar pour bëri fii def collage may ñaar sañ si génn kala tey sa tey sa doomu ndey moo xew tey moom sama maam moo xew sama maam la tubaarkalla sànq nag jël nañ ko def na ay témoignage yu doy waar bi waaw seen diggante macha allah waaw vraiment. waaw la bul wax. tubaarkàlla. laf cat rek. Eh. yàlla na ànd bi gënal sax. am na leen yàlla defal jàmm. adduna daal doy waar. tubaarkàlla. am na ñoo xamante ni ñuy ànd rek la bañ. waaw. mënut ñàkk. waaye borom salon bi kenn du moom. waaw moom it. waaw. dégg naa xoolal kenn dematul ba ba ba Dakar. ñu defal ah ñëpp fii la ñuy léegi. ah mais boo nekkee Thiès dafay dafay waaye yow gis nga woon que ne yow yoo xam nga woon ne verre la jàpp sa yëpp. merci. ah. tubaarkàll. ñu takkati verre dina la tàggu ci miin réew. Ah. Ah, voilà ci ngeen cee dana ñëw ba Thiès nga laaj. macha allah. ah c'est ok pour vidéo. ok waaw. ok. am na

demee waaw toog di solo ko waaw Ndeye Ndiaye seen seen na nag seen yàlla saa. sama waa ji dafa baax de moo ma tax a déplacé wu Dakar ba Thiès. moom nit ku am personnalité la nit ku baax nit ku mën a wax lu rafet nit ku mën a ñaw boo koy seet day jaay mii mhm. barki Seydina Mouhamed jàpp ko mhm. kii dama koo naw ci benn côté mhm. ba pare du yàq naw leen gis nga ku muy àndal def ni boppam dafa am fu jaar man ak moom fu garaaw mu wax ma yu rafet yoo xam ne si laa ko jàppee xam ne kii du yàq naw leen barki Seydina Mouhamed buy ànd ak yow day jël sa xol ak sa xëtër lépp jox ko man du sama xarit ànd nañu mais nit ku baax la ma xam ko ci internet bi ñu séq liggéey man ak moom moo woo ko bu ko mu ne ma noonoo non dugg na fii di defara defara defara defara defar ba man mujj gi lu ma jàpp dama koo baax yaa baax yaa am personnalité yoo xam nga ni boo xewlee ma paas ma jël sama oto saati ko essence jógee Dakar ba Thiès ñëw man du ñëpp a ma yëkkati du ma dem ci kenn di jëntiwuma kenn mais yow nit baax la nit ku bari valeur la nit ku bari personnalité la bëgg jëkkëram yam ci jëkkëram jëkkëram rek ko na alsa kon Ndeye Ndiaye bi ñuy gis ci télé bi yow xam nga beneen Ndeye Ndiaye bu boobu kii dafa baax mhm. yow man ku ma la ne baax na rek xamal ni baax na. li ma bëgg a wax mooy boo jaxasoo moom da nga gis yeneen jikko. barki Seydina Mouhamed. kii boo ko gisee ci internet muy wax. Mhm. da nga naan kii dafa pànk. Mhm. waaye boo boo boo rofanteeg moom nekk ak moom da xam ne kii li li li nday Ndiaye di suwe mhm. nekkul ci ci ci jikkoom. dafa ragal man maa la ko wax. man du ma waxantu. dafa ma fay ay millions ma liggéeyal ko. ma gis lu ma naqari ma woo ko. mais geste bi mu def ak defar gi muy defar mhm. naa ma noonoo defal nii defal nii defal te tey bu doon se se xale yi léegi si dañ la naan waaw diw lii diw lii diw lii mais dafa defar ma xam ne kii nit ku baax la mhm. barki Serigne Touba Mbacke jaan ci pax mën na nekk ak moom parce que tegle naa semaine di ko yendu ak moom di liggéey ak moom mu nekk nit ko am personnalité nit ku baax nit ku bari valeur mhm. man du ma ne kenn yàllaa ngi nii te gisuma ko man lu ma yëkkati yombul démb dama ne man Viviane bi dama sonn tey moom moo ma tey dem Viviane ba ba pare tey am naa yeneen programme moom moo tax ma wàcc ko ñëw man bu ma fiy def place damay ñëw gis ma parce que nit ku baax la nit ku mën a ñaw la nit ku am personnalité la nit ku bari dignité la moo ngi nii toog mm-hmm. xam nit dinañ la jox róor nit ñi ah. foog ni róor boobu yow noonu nga mel melul yorul sax jikko jooju man lu ma la wax si Ndeye Ndiaye mi takk ko téere barki Seydina naa ma toog ak moom joué ak moom yenn ak moom fuu mi du ma bàyyi ma fen xam na li may wax mm-hmm. ndax bu ma woowee jotuma fuu lay woo mm-hmm. fuu ne ma Ndeye Ndiaye nit la kii ku baax la moo tax nit kenn du ko jugé mm-hmm. nit kenn du ko jugé mais maam yaa ngi wax ci Ndeye Ndiaye mel ni cofeel bi dafa bari sa diggante ak moom lan la la defal loo xamante ni lu remarquable la ba tax na nga jàpp ko tee xam nga kii lan la ma defal. Mm. xam nga jamono ji ñu nekk nit ñi dañuy jayaate mm. du ñu wax nit dëgg. Mm. te booy ànd ak nit ànd nu ñu koy waxee. ànd jaayante la tàqalikoo jëwante. dañu dund maa moom ci lu ma la wax nii ma woo ko mu rafetal. islaama li ma la wax. Mm-hmm. mu rafetal te tey bu doon keneen day yàq. danaan diw noonu la mel. kii ak a bon ak a def nii mais dafa defaral ba ma naw ko mhm. ni moo tax ma xam ne kii kuy ànd ak moom boo teewee da ngay rafet boo wanee ginnaaw da ngay rafet noon mhm. noonu lay mel te damaa gis ci moom jukko yooyu barki Seydina Mouhamed billaahi wallaahi wal kitaab dama dundoog moom loolu moom su ma la déggee dafa mel nii dafa am ñoo xamante ne dañuy ànd ak maam Ndiaye ndax succès bi mu am. Mm. am ñoo xamante ne dañuy ànd ak Ndeye Ndiaye ndax xaal alal bi moom am kii maam. Mm. Euh, am na ñoo xamante ne ku nekk am na lu muy wut ci euh, ki nga xamante ne moo di maam Ndiaye sa waaye Ndeye Ndiaye dafa ñëw wane fulla ak fayda ak kóllëre tax na nga jàpp. Ndeye Ndiaye li ma la wax déggoo ma du sama xarit. Mm-hmm. dañoo séq liggéey mu génne xaalisam dugg sama oto génne maletu xaalis fay ma man. Mm-hmm. liggéey laa séq ak moom ñu signé man ak moom contrat mais dama ko naw ci liggéey boobu parce que boo ko séenee ci internet bi wala théâtre muy wax danga naan kii dafa bangam mais boo jëflantewul ak moom doo ko xam ma jëflanteek moom mu nekk nit ku baax nit ku bari valeur nit ku bari personnalité man duma waxal kenn ni yàllaa ngi nii te gisuma ko man benn xale lijjantiwuma benn xale faalewu ma xale man xale duma may lu ma amut mhm. ndax bu xale yi xëyee damay xëy bu ñu wàccee day bay liggéey mhm. ñoom bu ñu wàccee man damay liggéey continuer kon foofu kooku fa alewul kenn mais mhm. kii kenn la ci àdduna man maa ko wax du ma seedeel kenn loo xam ne nekkul ci man barke Sëriñ Fallu Mbàkke nday nga dégg kàddu yi maam Ndiaye wax mu jógee Dakar déplacement ak dérangement ñëw ba Thiès ñëwal la ci sa xew yëkkati yi kàddu yi témoignage lan nga ciy teg man damay wax ni dafa baax rek comme ni ma wax sànq dafa baax rek ndax ku soxor du gërëm ku iñaan du gërëm mhm. te mu lii nii mënoon naa koo sekk ak moom mu nëbb ko téye ko bañ koo wax te boobaa tamit dara ndax moom li ma sekk moom tamit man sekk naa ko moom gis naa ne moom it am na personnalité te respecté na kàddoom ndax liggéey lañu sekk mhm. may def kër Ndey Njaay si ak Raf Prod Sénégal mhm. ku ne xam na maa Raf Prod Clara di PDG bi di sama nit ku ne xam na maa moom ma koy def mu jël lépp teg ko sama loxo ne man day kër Ndeye Ndiaye bi géré ko ma gis ko ci sentir ko ci ma woo ko ba ma ko woowee mënoon naa rejeté wala mu wax ma benn wax boo xam ne ndax fii bari na fi ndax nit ma mën nga génn benn génn rek yéeg succès mm-hmm. mu yéeg sa dënn poñe say ween succès tax succès dafa garaaw mm-hmm. te macha allah dalu ko dana ma carrément ndey damay ñëw mu nelaw ba guddee tëdd ma yee ko fajar laaj ko fu hmm. fu wëng ni duma bàyyi ma fen mu taal otoom ñëw tourneel ma ba ma pare ci moom mu dem ñibbi te loolu ku am personnalité am classe mënu ko hmm. ku ko amul mënu ko franchement ndax loolu dama ko cee téye billaay wallaay taalaaxe mu ñëw liggéeyal ma normalement alsaan sama jëkkër sax da koy wax ndax mënoon naa di tardeel tournage bi wala mu toog ba heure bu ko neexee du ñëw ndax loolu bari na fi hmm. mais def ko yëfi professionnel la def. te macha allah loolu tamit dama la cee naaw. da nekk nit ku baax tamit may gis say baax baax. te àddina moom mën nañoo xaw ma nuñ koy waxee euh, tëj lépp bam des gémmiñ man sama gémmiñ dama ma ko bu nit defalee lu baax dama koy wax. Mm-hmm. lu ma defal moo tax ma wax mm-hmm. waaw. soxla naa ko ñëw na liggéeyal ma normal amuma ci problème mhm. dama la ci sant de la ci gërëm wax dëgg fa yàlla yaa ngi ni jóge ba mhm. Dakar tamit ñëw si sama bis bu la nekkoon bañ ko mu bañ laa dal du dëgg mhm. nday dafa mel ni yéen ñaar da ngeen di demalante maam Ndiaye am na fi ay événement yow nga jógee Thiès dem fekk ci ko Dakar tey aussi tamit mu fay la li nga xam ne yow yaa ko ko lebaloon ndax dafa mel ni seen relation dem na ba Euh, euh, daanaka liggéey ak liggéey ñaari nit yuy liggéey seqatoo leen ko famille da ngeen dem ba familiariser wu seen diggante. waaw mais dafa am xewle programme am euh, woo ma booba feebar naa tam tamit moment yooyu mais dama ne mun lu ma mën a bañ a dem ndax kii li ma ji la déggoo li ma la wax nit benn affaire la lay defal nga téye ko tam man damay téye nit. benn affaire nga may defal bu ndaw ma jàpp la ci. mënoon naa koo woo 22 appel du ma jël. du dëgg. ma woo ko mu jël ma ne man ndey maa ngi ñëw des fois ma ko jotul fuu mi laay woo wax na dëgg te bu ma jotee fuu mel na ni moom laa jot ci saa si mu ni ma ndey maa ngi nii di ñëw ñëw liggéey demaat waaw damay lay sant di la gërëm ba nga xewlee sa Kazu euh, Rajab ba nga ma woowee lépp laa bàyyi ma ne damay ñëw force ndax li ma ji la. Mm-hmm. mi ngi noonu. dëgg la merci. kontaan nañu. sànq bi kii bi soxla si jama moo jaay ci. waaw waaw. laxaat laxaat. laxaat.